jafe-jafe yu bari lañu lañu lañu la ñu am jafe-jafe yu tar li waral loolu mooy euh, nguur gi dafa jël di dogal dakkal njàng ci école yépp te xam ngeen ne euh, boo loolu amee ndongo yi jàngatuñu Euh, sen parents duñu fay té lolu euh, dafa fekk benen jafé jafé ndax gu nguur gi daf ñu yónnee ay ndongo yo xamné daf leen waro daf leen wara fayal té amna juroom ñaari milliards ak juroom ñaar fukki millions yo xamné euh, dagal nako école privée yi né dina ko fay ci ci budget bi lolu depuis lors depuis janvier ñu ngi doon xaar lolu genn entre temps mbir mi ñëw jotuñu ci entre temps eh, étudiants yi eh, ñu ngi toog seen kër loolu moo tax mbir mi son euh, sonal nañu ndax école yi amul amatuñu amatuñu benn dërëm pour mën a euh, continuer di di di fay li nga xam ne war na ko fay mooy seen personnel ñi nga xam ne ñu ngi ñuy liggéeyal ah di fay ñi location loo luyaas ah, di fay ndox euh, téléphone ak euh, électricité yoyu école yu bari fi fi fi may wax ak yeneen ni mënuñu fay yoyu parce que amuñu xaliss situation bu metti euh, encore une fois le créer ci au niveau des des des écoles. di rafetlu euh, dogal yi nga xam président de la république jël nako depuis lors liñ koy ñaan pour jàppale école yi mooy. Euh, bor bi nga xamné juroom juróom-ñaari milliards yi ak juroom ñaar fukki millions yi nga xamné euh prévoir nako ah ñu génn ko ci lu gaaw gaaw té lu mu lu ñu yex rek xem nañ ko parce que situation bi doy na waar trop fo leen ko nat rek dépasser nako ngor gi euh néna dina dimbali euh école yi euh, ci fan yi passé sax yónni wax nañ ñu yónnee ay kayit yo xamné dina dina ci mëna a sukkandiku pour dimbali école yi té li li wax dimbal école école privée yi Sénégal nous ñi yu nous ah, diggu nous ak ñi ñi nga xamné enseignement supérieur parce que privé yépp privé bi am à l'heure actuelle ah, rawatina école donc école vraiment bu président de la république nguur gi